gars yi yaakaar naa ne ba tey ci journée Ouzin production lañu nekk beneen combat lañ leen di présenté mu dox si diggante Bébé Garga bu école de lutte Balla Gaye ak xale bi nga xamante ni mooy Petit Lo bu Rock bi nag nekk combat espoir Bébé Garga digganteem ak Param 2 si la mujj xale bi nga xam ne mooy Petit Lo digganteem ak Cendee la la mujj Bébé Garga fii ñu taxaw ni yaakaar naa ne mosu fee am defet kum fi mas a bëreel ku nekk yaakaar naa ne daan na la jéggi la dem yoonam Potiloo fii ñu taxaw aussi tamit mosu fee am defet parce que yaakaar naa ne ca ndeela la fi mujj bëreel daan ko jël bu rëy ñoom ñaar ñëpp nag kenn ku nekk am benn defet ñu jëm ci combat boo xamante bi ni combat de choc la combat boo xamante bi ni parcelle géejawaay moom kenn ku nekk xam na ko te ñoom ñaar yàgg nañoo daje ci ayu bis léegi nag damay nuyu Ousseyn rek laaj ko moom tamit combat bi nan la def ba taxawal ko parce que tamit bébé garga ba mu jógee ci param ba tey ñu ngi wax combat mi mënul taxaw Potiloo moom jox nañ ko fi plusieurs fois adversaire ñu dem ba ci biir combat bi yàqu Ouzin combat bi nga wax ba tey. waaw combat bi ba tey comme ma ñoo xaw a yem ni ñu leen taxawalee. parce que tey ku mel ni Petit xaw na daanaka wutal nañ ko lu mat cinq adversaires mm. saa yi ñu ko wutale combat bi am ay dog-dog. Mm. Ah, bébé garga tamit noonu. vraiment yàlla mi dara tëwul ci aas laan nañ waxtaan ñu xool ñoom ñaar seen palmarès ñu ne nañ leen ko proposé ba xam bi ñu proposé camp wu ñi nga xamante ne ñooy bébé garga ñu ne amuñu problème waa camp wu mot ah, petit ñu ne ñu amul problème combat bi daal di taxaw ci jàmm ak mhm. kon noonu la combat bi demee daal macha allah voilà mhm. beneen mhm, euh, mooy comme li wax ñi ñi passé rek dañ leen di parce que xam nga mbër moom boo koy wutal adversaire moo am temps boo xamante ne dafa toog di la ko xaar nga koy wutal adversaire bu temps boobu ñëwee ba combat boobu taxaw da dafa laaj remercier dafa laaj mm-hmm. sant ci camp wu Petit Lo ak ci camp wu ki nga xamante ni mooy bébé garga mm-hmm. kenn ku ci nekk mënoon ngaa bi ñu leen waxee temps bi nga xamante ñu ngi leen wutale adversaire mm-hmm. mënoon a ñoo bàyyi combat bi wuti leneen mais vraiment ci seen camp ci côté papaam moom ci boppam père Ibou ak ci côté mbës mi nga xamante ni moo yor euh, bébé garga ñoom ñëpp dañuy boole sant leen gërëm leen wax na leen daal li ñu wax ci combat bu mag bi sànq rek spécial bi tamit loolu lañu amee ci moom yaakaar nekk combat boo xam te ñaari gaynde nañu doon diggante parcelle ak géejuwaay moom mm-hmm. seen histoire moom bu jeex waaw derby la parce que dafa mel ni Modou Lo Balla Gaye fii mm-hmm. feeñaat rek quoi mm-hmm. waaw macha allah am na solo ñan ngay woo ci journée bi waaw journée bi comme ñi ma daan woo rek yàlla dafa dogal ni man ku ma xam-xam sama digganteeg euh, Néné Tall ministre de la jeunesse tey mu nekk sama jigéen nekk jàmbaar nekk liggéeykatu président la république muy Macky Sall tey ma bokk ci ci njabootam vraiment maa ngi koy woo ci journée bi parce que ñoom ñu ñëw jàppale ñu. Hmm. wutal si comme suñu ay partenaires ñun ak ñoom. Hmm. nañu jàppale bu baax ci li ñuy doxal nii. di woo ki nga xamante ne mooy Moustapha hmm. Mbengue. muy ki nga xamante ne mooy président union régionale mutuelle de santé de Dakar. ñooñu tey lépp lu mu mën a organiser ci làmb seen loxo dafay ñëw dañ ciy jàpp. parce que ñoom benn combat nañu am mooy naka na ñuy def ba feebar faju nekk ci biir làmb ji feebar mënut a ñàkk ci doomu aadama mais bu ñu amee mutuelle de santé. vraiment ku ci nekk am carte sémi yaakaar naa ni loolu dina nekk loo xamante ni lu mën a dimbali doomu aadama yi surtout mbër yi loolu vraiment grand bi maa ngi koy encore di ko remercier waat hmm. xamul ma tuddee ko làmb xamul ma lu mu dégg ni Ouzin mi ngi ci rek yaakaar naa ne da ciy da jàpp kon moom tamit ñu ngi ko ci woowaat di ko ci xaar ci combat bi nga xamante ni la 14 mai la incha allah jërëjëf Ouzin jërëjëf Amadou jaajëf yaakaar naa ne am na solo léegi nag maa ngi ci daj dëpp gi <laughs> eh, diggante parcelle ak géejawaay yàgg de bu teyee parcelle gagné bu subaa géej waay gagné waaye ba tey daal coow li da ciy des Petit Lo ak bébé Garga Petit Lo maa ngi siyaar ah, di nuyu gars yi teew fi yëpp di la nuyu bu baax di nuyu promoteur di nuyu sama adversaire di nuyu sama waa gàlle yëpp di ko delee si Médoune ba sama maam di nuyu sama papa bu baax di nuyu sama waa gàlle te nga di nuyu sama yaay di nuyu sama gars may àndal yëpp ñoom saa xam ñoom Youssouf ñoom Papa Let ñoom Amar ñoom Louga gaa yëpp maa bëggee sama gaa yëpp. Mhm. bëggee ñëpp ah. am na dara Garga maa ngi bëggee. alhamdulilah bin seetaan rajo alhamdulilah bin sant jul si yonte bi. bu maa lay nuyu. Mhm. di nuyu ñu fi teew ñëpp di nuyu suñu père moom it programme bi. Mhm. di nuyu ñu ma àndal sama papa Mbës Cheikh nuyu waa Guédiawaay gi yëpp. waaw di nuyu waa sama dëkk. maa leen nuyu di leen woo si combat bi. waaw incha allah. booba léegi looy ñaq nii rek booy da ngay napp wala. waaw ñaq bi dara. waaw. Hmm. <laughs> lan lan lan moo la dugal si booy bi nga xam ne ñëpp dañ koy teggi moom. waaw man chaque jour damay di bëreeg ndaanaan te moom champion la ku ne def ay ay ay kii quoi ay preuve hmm. waaw combat du yàqoo si man. Hmm. waaw. yaa ngi ñaata combat cinq. waaye cinq combat. quatre victoire benn défaite. macha allah bu yem fa nag. waaw allah am na solo. Boy yaa ngi si ñaata combat. maa ngi si trois combats. trois combats wala quatre. bi mooy quatrième bi incha allah. ok man de nax nga ma pour man yaa ngi si quatre. non maa ngi si trois combats. ok danser Amet Lagros ak Cendé la. waaw ah, Cendé la waaw. ok comme hmm. eh, man sama papa as ku ñu ku ñu ma wax rek dama naan leen acca quoi. Hmm. Eh, mooy loolu man bëre rek. Hmm. lan moo la dugal si booy bi. ah mais toog mënu ma am adversaire kay te moom adversaire sama morom la ay morom la. naataango lañ ci làmb ñu wax ma ko ma d'accord eh, loolu kese na waaw kontaan de dégg naa moom mooy sonal Balla Gaye Balla Gaye suuf la bu bëggee génn rek ci moom lay ñëw <laughs> xam nga loolu bu baax la ah <laughs> na liggéey bu baax rek man dem ma liggéey bu baax comme que ñun ay xale lañ eh. promoteur bi am na ci ñun yaakaar ba tëgg ñu kay eh, di ñaan yàlla bu yàlla tas yaakaaram quoi ñu def yëpp xale quoi ñu ñëw ñu bëre mu neex quoi xam nga bëggal amateur bëggal ñëpp Hmm. mu def lu mu war a def lépp mu def lu mu war a def bu ñëwee ba fii nag ku nekk def li nga war a def quoi moom de combat am du yàgg fii moom miin na ko fële mooy borom boo ko boolee matul deux minutes la gros ak moom yëpp seetaan naa yàgg kay insha allahu lay dépendre ah ci moom lay dépendre kay ndax man li ma war na li ko war da koy def bu yàggee ci yow la maa koy nuyuwaat yow yow xam nga samay combat man du ma sax une minute lu yàgg <laughs> waaw combat bi incha allah rabi bëreet na si feeñ xeex na ci feeñ di yàlla nag mu suturaal may man dam lan moo tax bëreet dina ci feeñ xeex dina ci feeñ da ngeen am lu ngeen làq bëgg koo wane wala waaw moom saraan naa ko moom day attaqué bu arbitre soufflé rek day dal sa kaw foo fekk mu foo nekk mu fekk la man tamit damay ñëw mhm. kon dina gaaw dina neex incha allah di ñaan ko dàq bëre maa ko dàq bëre moom mi barki yàlla maa ko dàq bëre kii day toroxal yaram bi di dem si mbapat yi de. xam na loolu sax. naa loolu waaw moo la dàq ñu jàppante dinañ xam ndax dàq bëre wala moom dàq bëre. ñoom kay wax na ko devant dans le public ñoom Mass ak Kalidou ñëpp yi seetaan. moom mu nekk xale ba tey bëre laa def. eh man bëre rek quoi rek amul leneen bëre doole. ah man ci lu ma jàpp maa ëpp la ñamantewul mënoo xam ndax yaa ko doole mais man a xam ko gëm-gëm naa ne maa ëpp doole quoi loolu la mën a wax mënul wax leneen lu dul loolu moom loolu la gëm mhm. li mu wax rek tant que laalewuñ moom kenn mënul xam sa morom mhm. waaw ah, bu changé wul li muy bëree dina gaaw di nga sens ndox du bàyyi yoon non ndox du bàyyi yoon saay dama gars yi bàyyi seen yite yëpp nekk si man ma am combat kenn liggéeyu di dem di def si man sama papa noonu gars yi génnee xaalis teg si table bi noonu ñu sant ma entraînement kese ma ba jour lamb ji hmm. ma ñëw fii di wane affaire ñàkk fayda macha allah woolu waa parcelle waaw ah, maa ngi woo waa parcelle yëpp 1 bu 26 di wax gars yi nañ waaw nañ gën a jóg waaw nañ ko def bi mooy suñu premier combat quoi di woo waa Parcelles yëpp waa Niodior bu baax a baax a baax di woo waa Tëngéej di woo waa Fandène di woo waa Touba di waa Tivaouane ah Saatu waa ci combat bu baax. le grand marabout. non kooku maa ngi moom du ay affaire marabout quoi maa ngi moom avant la yàgg quoi. Hmm. maa ngi woon ñëpp nag ñu jàpp si ñoom Papa Gueye ak Père Ba. man xeer. Papa Gueye Papa Gueye benn dëkk Nord Foire rek. ak Youssou maa ngi woo gaa yëpp gaa yëpp jàpp si. ndax bi ma sum combat premier combat spécial laay bëri nii. jërëjëf waaw di woo gaa yëpp ñu si daal. jërëjëf dinañ yàlla defal ñu ndam ci kawam incha allah. Boy ñëw bëree juum. combat bi daa am bor bu ma war a fay. Eh. ci moom mi laa koy fay incha allah. laa koy wax nag. Hmm. lu mu waaj doyut. di woo waa sama waa dëkk waa Njëgëj waa Kër Baaba waa Mewaan woo waa Njee waa Gangu waa Njaxate waa Kër baa bu baax a baax Kër Baakar Kër Njoba Fandeen Njaxate Gor moom maa leen di woo bu baax ñu jàpp si combat bi di woo waa di woo waa Géejawaay di woo nag sama grand Cheikh Mama maa ngi koy woo mu jàpp si combat bu baax Amet ay dara Modou Ngom maa ngi woo autorité yi nekk Géejawaay yëpp ñu jàppale ma nga man drapeau Guédiawaye laay teewal. waaw macha allah kon yaakaar naa ne man ngeen a dellu ca teere ak njaboot ga léegi. combat bi nga xam ne mooy mooy tëj moom laay dugal muy Siteu ak ki nga xam mooy ya ah.